jërëjëf mbokk yeeg xarit yi amaan mbégte ak kontaante euh, dikkaat seen émission waxtaane ko waxtaane ko nag euh, xam ngeen ne lundi jàpp àjjuma euh, fu 11h jotee jàpp midi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dina ñëw andi leen ay thèmes yu yees ngir waxtaane ko li ci kër yi ji metti mbedd mi euh, li ci société bi yëpp incha allah ak ay jàngatkat ku ci mel ni Adja Absa ak Adja Ndak tey ci talaata gi ñoom ngeen am waaye di nuyu kilifa diine yëpp yëpp yëpp di nuyu kilifa aada yi di nuyu borom kër gi El Hadj Bougane Guèye Dany di ko ziar bu baax a baax a baax a baax di nuyu tamit euh, Momi Guèye Dany di ko ziar bu baax di suñu préfet Djibi Diallo monsieur le préfet maa ngi lay jaar di nuyu tamit euh, Boubacar fay ca Guinée sama xarit sama doom ndey maa ngi lay ziar ak ay Aïssatou xarit Mantulaay maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax di tamit euh, ki nga xam ne tamit euh, moom mooy Cheikh maxtaar ak soxnaam maam Ami di ko bu baax a baax a baax di nuyu tamit euh, El Hadj Mor nag ca Thiès di képp ko xam ne yaa ngi ànd ak ñun euh, di jaajëfal waa Rési bu baax a baax a baax liggéey bi nga xam ni euh, wax dëgg yàlla booleen nañ ko liggéeyu Rési ak tamit di monter ay caméra damay wax ni boo leen fi nekkul woon émission du fi am tabaarakallaa yàlla yàlla fay leen dañuy daal di dem rek balaa sama ñaari jigéen ñi di nuyoo ñu dem déglu ji li nga xam ni moom mooy reportage bi bu ñëwee nag dikk ci nuyoo yi ak jàngat yi billahi def sama xol bi du neex te aussi day ubbu sama ndaga bu ma amee à de deux sama maam moo ah, ma yar jigéen par exemple sama sama papa rakkam sa yaayam rakkam la ma léegi ma nekk ak samay kon man bu ma nekkee xale dama dund si violent xam lu ma la wax lu ma def ndaga dañ may dóor di ma def ndaga dix-huit ans si laay door a xam sama papa ak sama yaay. lu tax nga soog a am dix-huit ans soog a xam sa papa ak sa yaay. parce que man instant boobu noonu sama yaay xaw ma ko su ma laajee sama maam an sama yaay ak sama papa. Eh? sama papa rakk kiyam la ma tuddee yaayam. yaayam la ma tuddee waaw. rakk rakk rakk yaayam la ma tuddee yaayam bu ndaw mais instant boobu sama xaw ma la sama maam da doon bañ ma xamante ak sama papa waaw man maa ngi judd le 18 mars 92 mais jamono boobu noonu dama amee à l'âge de deux ans lañ ma génnee Tamba yóbbu ma sama maam Ziguinchor. bi jur bi tarak eh, maam bi jur bi jur sa papa. nga léegi ñu yóbbu ma fa mais tonton Ndiaga sama bàjjen yi dana njaga sama pooj yi fii ay cicatrice kese la ma nekk ci ci torture ba nu ma amee dix-huit ans laa mujjee fitt ba ma xam sama yaay ak sama pap mhm. mais après ma dem ci sama yaay xam nga ma expliqué ko sama yaay mais après sama yaay ñëwaat na ba Ziguinchor mhm. dëkkandoor yi wax ko ma lu may dund ñu ne ko yow yow lii erreur la nooy jëlee sa doom à l'âge de deux ans ko ba nu mu amee dix mu mm-hmm. ne leen wallaahi sama doom def naa tu pour gis ko. Mm-hmm. sama sama yaay na ma baal ma ak parce que mu ne ma yo benn jour damaa dem marché yoo di jaay mu ne ma kon sama bàjjen ndaa ñëw complot ak sama papa comprendre nga ñu yóbbu ma jigéen soor mu ne ma instant bu man xaw ma jigéen soor te période boobu période rébellion bi ñemewul ñëw jigéen mm-hmm. soor comprendre nga. mu ne ma baal ma mais après bu ma jógee foofu ma yaakaar ni sama coono dafa jeex ma demaat ci sama benn bàjjen. fa laa waaw fa laa continuer sama eh, jàng. lu tax bi nga amee dix huit ans sa papa nekk nekk ci say mbokki papa sa papa xamoo sa papa. ah aussi tamit sama maam tamit moo defatoon effort sama papa tamit seetaan ma man xaw ma je sais pas comme moom mayee na rek. daanu woon ñëw daanu ma woon ma woo du ma woo du ma nemmee ko man dem naa ba tonton dama dem ba man dama doon jooy ma naan man est ce que man am naa ndey ak baay après sama yaay expliqué ma mu ne ma lépp paa bi la parce que yow bi nga nekkee xale dafa yóot complot yóbbu la Ziguinchor après bu ma ñëwee wax naa sama papa yëpp man du ma doon dund ma après fur et à mesure da koo mujjee gis après à l'âge de dix-huit ans bu ma xamee sama yaay 2010 ne woon carrément man doy na Ziguinchor man dootuma dem sama papa ne ma dellu rek amul problème comme yàlla baax na tonton Diaga ma nekk fa jàng jàng ba ni ma amee en trente mm-hmm. léegi nag sama bàjjen ne ma léegi da ngay ñëw ci tonton Diaga ma jógee Ziguinchor dem Thiès may jàng mooy sama cousine papa bi ku doon jege kii torture bu ma defal amoon. bi nga am dix huit ans nga xamanteeg sa papa ak sa yaay. waaw si laa xamanteeg sama papa mais bu fekkee ne nga pour am pour am entrée en sixième. non non fekkee boobu noonu man kii ni collège. ah ok d'accord voilà. comprendre waaw. léegi après nag sama nu mu tudd sax après nag sama bopp ne ma delluwaatal comprendre nga comme tamit aussi bu ma nekkee xale dama jox sama maam xam naa pour nanguwaat ko day rus. waaw mu ne ma demal parce que moom dem na ba am si ay preuve dem na ba sama dëkkandoor yi woo ko expliqué ko lépp ñu ne ko xale bi dafa torturé fii parce que man dama dem ba man sama xol man dañ ma doon dóor su ma tojee kaas ñu dóor ma te noonu daga cinq heures du matin laa doon jóg may liggéey ba six heures du matin te doon daga dem école ñëw léegi ma yaakaar ne toog boobu jeex na am naa entrant sixième maa ngi collège mais sama benn euh, bàjjen jël ma ma nekk Thiès Mbour ma nekk moom foofu di nekk moom di dem xoolal may jàng collège di ñëw te doon daga sama sama bàjjen di ma tottee sama bàjjen dem na léegi ba man dafa yàq sama vie laaj ma lu tax dama dem ba feeñal secrèm luñ xam nga man luñ ma doon torturé sama papa woo ko ne ko comme man da ngeen di dem ba torturé sama doom dama bëgg ngeen delloo ma sama doom parce que man Thiès man dama doon sàkk parce que mhm. dama doon yeewu six heures du matin liggéey pare dem école après ma dem ba loolu mënatuma ko te heure bu ma ñëwee damay sonn ma dem ba ne ko man mënatuma mhm. parce que man xale laa li ngeen may teg ma ko ma dem dëkk sama benn këru copine mhm. mais sama ma wax benn wax mu ne ma bu soobee yàlla yow mii doo mus a am jëkkër tonton Ndiaga tonton Ndiaga damay am ay nit yu baax ñoo xamante ne dañuy bëgg na soxna mais tonton Ndiaga dañuy ñëw wax ak samay parents. Mhm. ba ñu jàpp décision tonton Ndiaga man dama leen gis fu ma dem ñu ne ma liggéey la. te mhm. carrément sama bàjjen ndax ma ne ba soobee yàlla doo yoo doo am jëkkër billaay sama yaay moom may jàppale mu nekk may dem di faju damay am ay nit yu baax franchement. loolu noonu day rongé sama sama xol ma xol day métti des fois damay toog may jooy. damay am ay nit yu baax wax dëgg fay yàlla de dañuy dem ba waxtaan ak sama yaay sama pap ma ne gis nga sama pap mi ngi noonu man lu ma la doon wax sama papa ne ma man xam naa ne samay mbokk baaxuñu mais coloré tax comme man dama la tuddee sama rakku yaay mu ne ma jox ma sama turandoo dinaa ko yar mu ne ma loolu moo tax mu ne ma man daanoon naa woote mais maire bi moo ko ne bàyyil woote bi parce que booy woote xale bi day dem ba xelam nekk Tamba. Mm-hmm. léegi bàyyi ko fi dinaa ko yar bu rafet. mais te loolu njaga man sama xol des fois damay toog damay damay am lu ma métti wallaahi damay gis nit ku baax mu waxante ak man mais sama bàjjen defu ko man kese parce que yor ma sama doomu magam kooku noonu ba tey tonton njaga am na trente cinq ans amagul jëkkër mu defaat ko rek ko jëkkër moom soo nekkee ci moom boo leen jotee tuuti rek da lay tëkku dana njaga man affaire boobu moo jàpp sama xol samay am samay nit yi baax xoolal ma wax ak ñoom mais xoolal pareil parce que man sama yar neexul sama yaram dafa dem ba nek ay cicatrice parce que lu ma doon do lu ma doon def dañ dañ ma doon tour man damay joy man naa lii tel laay jam mais ma luma a metti tonton jaga ma dem ba tollu ci sey ku ma waxante ah day yakku wallahi des damay joy mané man la la la la def allah damay jooy waxal sama yaay eh. sama yaay tout temps mu may encourager mu ne ma muñal ba alma ak parce que man suma xamal li ni yëpp man dama la sa joxe sama xarit ni ma fi woon ñepp am jëkkër man def sama bajje daf ma tikku mu ne ma parce que yow da ngaa da ngaa ñëw jaxase ñu ak sa ak kii nu mu tudd sa ak kii sama pap parce que ma damaa dem boo sama pap vérité bi encore suñuy dëkkandoo yi nekk Ziguinchor ñu wax la ne xale bi dañ koy doon dóor te man nag damay toj caas samay rax ndax ma toj caas dañ ma doon dóor ba man damay découragé su ma wàccee école balaa xoolal su ma wàccee une heure deux heures su ma settee si yoon bi tontu ëndëgal su ma ñëwee dañ may dóor ba man dama mën a def dara. ah école daa sori woon dafa sori woon ba pare su ñëwee tuuti ci damay raxas ndab ba sonn ba tey sama papa kerse boobu moo dox sama diggante moom mais man fii laa nekk Dakar ah, lu ma lu ma am dam koy bokk ak ñoom damay jaay parce que jamono bi ba léegi waaw ñoo ngi mais sama papa dafa dem ba rus sama diggante moom kerse dafa des mais man lu ma gën a rongé sama xol gënum sëy bi mu yàqal na sama àdduna comme lu waxaan kenn ma bëgg a génn des fois damay rus sax damay toog ak mu may am samay nit yu baax barke Muhammad reportage bi euh, bu ñu jugee nag ci reportage bi euh, damay jox euh, Adja Absa déglu na reportage bi nga nuyoo te dugg tamit ci ni nga dégloo reportage bi. dëgg la bi te dañ koy gàttal amuñu benn temps. Mhm. waxu waykat bi nuyu Sénégal nuyu soppay waxtaane ko di nuyu sama mag Adja Ndak di la nuyu. Mhm. di kontaan bu baax na toogaat fii ñëw di indi suñu xalaat ci li nga xamante ni moom lañ fiy indi di ko wàccee ci ëtt bi njaga hmm. yarluwaan dafa metti lool man toujours damay faral di wax benn kàddu doom ku ko jur war koo mën a téye hmm. li olof naan dugub ko ko soq mooñ ko wal ko du la jaaxal waaye doom boo ko juree war koo téye ca la nga am mu néew mu bari hmm. njaga ana jël sa doom ni dama koy jox bàjjanam te am foo ko tëddal te bàjjanam am ay doom yàgg nañ ko fay def nag ma bokk ak ndaak ndey ak am njaboot ndaak amul njaboot nga jël sa njaboot ba nga ko génnee ci ween bi nga koy jël jox ko ndaak mhm. waaye yërmande boo ko amul doo yar xam nga doom bi nga jur da nga koo bëgg loolu da koo bëgg ba gëmbewoo ko boo ko waneeg boo ko wanewul waaye boo amee yërmande di nga bëgg doomu jàmm di nga ko ci samp boo toogee ba mu yàgg nga tëdd di nga ni doom jii su ma ko juróon dinaa ko yéene leen te njaga lan moo gën a neex ci àddina hmm. ñu jox la xale baa ñu tuddee la doom nga def ca la ca war toog a toog a toog ba ñu géewal ko hmm. waxuñu bàjjeen yi nga xamante ne dañuy toog ba bisu xew ba hmm. ñu ñëw ni ñu ngi fóot ñu ngi ñëw di indi si di fóot di jokkalante pour ñu dolli leen lañ leen jox boobu bàjjeen taxul ñuy wax bu ñuy wax bàjjen mooy bàjjen bi nga xamante ne mooy bàyyi taxaw taxawaayu bàyyi téye xale bi ci kër gi man na question bi may posé wu mooy ñi ngi wax naan Sénégal dafa yàqu ajandaat kenn ku ci nekk ne nga yar naa sama doom ñëpp fi mu toll nii yaay yëpp a ngi yuuxu ku nekk yaa ngi naan Sénégal lu ko yàq kon ñi ngi bëgg a am buntu Sénégal lan moo ko yàq ndax doom ji nga xamante ni yaroo ko xamoo ci lu muy xëy xamoo ci li mu gimmi doom jooju nga xamante ne danga koo jox nit mu téye ko surveiller ko xoolu ko ba xale bi di yàqu wala di génn di dem kër xarit di fa dëkki am boobu fit ndax ñi ngi koy dóor ci kër gi wala ñi ngi koy mettital mu jënd yeneen jikko defe naa kooku mooy jikko yi nga xamante ne ñooy wàll ci doomu jàmbur yi nga xamante ne yar nañ leen mhm. kon bu ñuy jooy naan Sénégal Sénégal fu mu jëm Sénégal fu ñu jëm bu ñu defee ni ginaar yi rek kenn ku nekk uf say yar ko téye ko ci kër gi boo amee soom bi bokk ko ak moom soo amee sa mbaxal bokk ko ak moom soo amee sa ndawal bokk ko ak moom xale boobu du la jaaxal du la të xam nga fi muy xëyee ak fi muy tëdd mais jël doom daal sànni joxe ci bëgg yaa baax man nag duma baax ba mayee sama doom baaxaale ma ko wax dëgg yàlla xanaa li ma wax rek bokkoon ndaak nday ak baay amul bant ñu bokk ma bëgg ko lool jël sama doom xam ne su ma ko joxee ndaak dinaa ci gis lu ma neex te duma ci teggi sama bët nag duma ko ci teggi kat ndax doom ji maa ko jur te bëgg naa ci ay jikko yu baax dañoo tam ay yeexam laa la laaj waaw xam nga bu njëkk dañ daan def njaga bu école tëjee rek mhm. nga daal di ëmb sa yére doom yi doo fóot doo paase ni ko demal kër ndaak nga vacances yi fekk ndaak am na lu ko doy mbubb ak tubéy dëgg boo ñëwee bu guddee fu la tëddal daf koy të mhm. ndax ma nga yor njabootam yor ay rakkam yor ay léppam nga sànni ko fa mu dolliwaat beneen gémmiñ ci ci ci cinam mhm. am na ko wala amu ko mën na ko wala munu ko lim koy def mooy la muy def loo njabootam wala janq ba mu doon jël vacance da koy bàyyi dootu ko jël ndax ay jigéen ngeen yéen a ngi ci kër gi ay yaxam laa la laaj mooy lan yàlla xool la bind la jël doom def ci sa biir xool beneen jigéen bind ko ni kii du am doom ilaa yow mi dindi gënoo ko déedéet waaw bu la ko joxee yow doo ko téye jërëjëf Adja sa bu la ko joxee doo ko téye Adja ndax ma bàyyi la nga nuyu nuyoo dugg ci waxtaan wi. waaw xam nga ñu ngi nuyu Sénégal yëpp. Mhm. ñi nga xam ñu ngi seetaan à a la Sen TV xam ne temps bi moo ñu xocc. mais mhm. njëga fi mu daaneel laay jël xam nga àdduna dafa dafa nit ñi dañooy soppeeku mais ba àddunay baax daan nañ joxe. joxe mooy nga gis sa doomu sa sa doomu ndey comme ni ko Adja sa waxee yàlla may ko bant mu nekk ci kër di sëy yow yàlla may la ay bant nga jël benn doom bu jigéen jox ko mhm. mu wéttali ko toog ci wetam daan na am ñu ni ko jox ñu yar ci boo xam ne yaay ji jur sax deful mhm. daan na am nga def ci moom jikko yoo xam ne nekkul ci ndeyam daan na am nga def ci moom jikko boo xam ne bu desee ci ndeyam dalay sant lay des ci dundam dëgg la parce que da ngaa rafetal nekkin wax mhm. waaye daan na am nag ak bokk yàqu daan na am ak mbokk ak mbokk yàqu dëgg la parce que am na joxe boo xamante ne suñ ko defee sa njaboot su ko yaay xamee wala bàyyi rek mbokk ga yàqu na. dëgg la ndax kenn ku nekk sa doom moo la gën a jege. Mhm. te am na loo xam ne doom kenn xamul fu mu nekk. kenn xamul ci xol la ne kenn xamul ci res kenn fu doom ne. bu sa doom jooyee sa àddina yàqu na te am na loo xam ne bu la ko doom waxee ci sa rak wala sa mag wala sa njëkk sa diggante yàqu na. dëgg la dund. Mhm. da ngay rafetal di as gor rek waaye dootu leen mën a ànd. Mhm. te yooyu nag li ko waral mooy man coxo rek laa indi teg. dëgg du mbokk wala jàmbur parce que loolu gis nga mbokk nday mi ngi mel ni ñaanu fanaan ci néeg bu ñu xëyee ku ne dem sa yoon nga gis ñaar yu mbokk nday bàyyi duñu mbokk dara dëgg la mais nga gis ñaar yu mbokk benn nday benn bàyyi duñu laalee mais ki laale wula ko bokk nday bàyyi bu la joxee doomam doo ko yor du ngeen laalee di tongoo di ay noonu ku wax kii nga bàyyi ko mais kooku boo yore doomam doo ko defar soo yore doomu jaam sax doo ko yor parce que njaga xamal ni ku mënewul ak ki nga bokkal nday koo moom da koy nax dëgg la benn biir sama yaay ah, nee na ah. ki nga bokkal ndey du sa mbokk sa bopp la. Mm-hmm. sa bopp la. wallaay dëgg la ki nga du sa bopp sa bopp. sa sa bopp la ba tax na am na loo xam ne su ko nit mënewu la ki bokkam du mën kenn. wala ku mu mëneel day ménager boppam rek pour nekk yow. parce que mm-hmm. dafa am côté bu ko arrangé. te yàgg yàgg jikko dana ma sa fay. parce que jikko du gën a yaan. Mm-hmm. nit nu mel rek loo may say dëkk. di nga ko mas a may loo may sab sopp sab noonu di nga ko mas a may sab sopp mhm. parce que nit li ci moom kenn ku ne li nga am ngay may mais dama lay wax ne la ki baax mhm. su wujjee baax ca ku jëgg su amee mbokk baax ca mbokk ga mhm. suñ ko joxee mu baax ca moom ki iñaante soxor di nga gis ko jur doom nangu ko def ay service yoo xam ne danga naan est-ce que kii moo ko sukk lay dëgg la di nga gis jigéen def doomam mettit xale dóor ko xeetu dóor boo xam ne danga naan est-ce que moo ko sukk mais kooku bu ko defee doomu jàmbur du la metti parce que la mu am la ko may. yemale na la mu am la ko may. mais àddina ba àddinay baax danga daan jël nii naa dem ca sama jigéenu géer gee. parce que booba dañu daan def dans les grandes familles griottes dañu naan booba dañuy dem di wayaa nii géew dañuy def yi te vertu ci la ëpp woon. dëgg la nga ne man naa dem yóbbu ko ci ab sa ndax mu am tekk. am yar comme man ëppal naa. naa dem yóbbu ko fa mu am tekk. am fa yar xam fa secret. Mm-hmm. mais est-ce que ab la moo tax ñu naan dëj xale. dama toog ci ruq bi du par lâcheté du par méchanceté mais xale il faut que mu dañ ñàkk pour bu bu dañul kumpa rek neex a yar nit su dañee kumpa nag du neex a yar parce que li muy bëgg a xam dafa bari te am na loo xam ne ku ko bëgg a xam da nga def ba def loo xam ne ngor nangu ko wala diine mayu la ko te nit dafay am jigéen dafa war a am fu mu yemale bëtëb ñu yar ko ci ci conduite boo xamante ni du ko génn pour àddinaam mu mën a ànd ak nawleem parce que des fois li olof di wax ni ko mag geureum mag xar kala yar mhm. te jikko ci kala yar ci bu ko déggalee njaga àddina ba yàqu waaye ñi ngi yar di ci def lu bax mhm. ñi ngi yar di ci jox jikko bu rafet parce que ki la salam alaykum salam alaykum ok bisimilah. te xanaa xamuloo ni boo yoree doomu jàmbur ku mënta yemale bul yar. déedéet. Mhm. soo mënta yemale. bul yar bu la joxe delloo ko ko. Mhm. mu gën a honnête. la. waaye jël doomu jàmbur teg ko métti bu liiree yaramam gis la ci. am na ko yar ba doom ja màgg mu wàcce ko mu màgg woon la gannaaw. dëgg la muy pen perdu la ma waxoon dëgg la. sonn nga ci parce que dana lekk dana naan da nga ko tëral da nga ko toog. am na ñoo xam ne seen gis nga loolu ndey jor bi wax man man contre naa la gis nga ab sa mhm. man je crois que nit ku ne boo joxee mbaax mbaax ngay jot sama yaay neen dul mu def dajeeg la nit mën nga lebal nit yiw mu fay la njëkkadi mais booba yow sa jikko nga joxe xanaa ni sama yaay dafay wax ne ki leble dafa def jikkoom ki faye gore mhm. ki leble li mu am la maye moom la maye mooy mbaax nga joxe waaw mais ki reconnaître nag ba fay la kooku am ngor dëgg la parce que bis bu leen lebal nit te dul ko fay. dëgg la mais saa n'a rien à voir ak yor def yor ko yor gu rafet. Mhm. jox ko les bonnes xam naka la nit ku yiw du toogee xam nit ku ni mu war a waxee defaraat ko ba su génnee ci àdduna mën a dajeeg ay nawleem. Mhm. xam ni man yar na may am na ñoo xam ni fu dem nekk fa. Mhm. mais am na ñoo xam toogaay sax bu ñu ci toogee bu ñu waxee nga xam ñii kenn yarul. wallaahi wallaahi wallaahi te loolu dafa am solo. mën a yarluwaan nag ci kaw ki mën a yar te am xol bu laa biir te am yërmande te am mbaax. loolu lépp mbaaxay baas bi daga ku baax man nga lu ne ku baax mën nga lu ne walaay dëgg la ki baax mhm. ñeme naa ko ci lépp mhm. parce que bu fanaanee ci mer sax day àbb ji ko waaye bu yeewoo dellu ca la mu am muy mbaax dëgg la jërëjëf Adja Ndak mhm. euh, mbokk yi ak xarit yi mën ngeen a woote ci 88 628 89 90 ngeen bés de 88 la si si allo. allo. allo. soxna si maa ngi lay jaar bu baax. ñoo ngi delloo ziar. Ya. maa yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm baax a baax. alhamdulilah. Ndiaga na nga def. gërëmaat yàlla bañ koo bokkaale. yaa ngi si jàmm baax a baax. alhamdulilah. waaw man de Ndiaga li tax ma woote. mooy mhm. problème lu yaas rek laa am ma bëggoon rek ku ma jàppale ba la ñu may génne. d' accord bu émission bi jeexee nga woote bu soobee yàlla. ban numéro laay woote. 78 111 68 68. loolu ma ko waxal problème na damaa jàngul te moo tax. xoolal euh, gaa yi ci suuf dinañ la ko jox insha allahu rabbi kon ma bañ a coupé. waaw ku bañ a coupé ñoom dinañ la ko euh, ngeen bës 2 wala ngeen ànd ak ñun ci 88 628 28 28 ngeen bés 2 incha allah ku ci dugg boo aloo rek euh, dinañ la jël di nuyu Baye Youssoufa Seck di ko jaar suñu partenaire la ci émission bi tabaarakallaahu dañuy di wax xam nga de maa naan am na conséquence. yoo xam ne yar da koy am mm-hmm. yenn saa yi nga jël sa doom ci bi muy gone jox ko Adja Absa nga dem a dem a a dem Adja Absa jikkoom la koy la koy yaree du ko yaree yow sa jikko waaw mm-hmm. oh, bisimilah salaamaaleykum Baye Youssou waaw Serigne Diaga ñoo ngi lay ziar Seck ñu ngi nuyu sama ñaari lay fay bu baax lay fay Seck. yal na leen yàlla may ñoom école lañu. dëgg la. xanaa sax xanaa dugg ci di waxtaan la rek waaye mënoon nañu bàyyi ñoom ñaar rek ñoom ñooy di développé. walaay dëgg la walaay dëgg la. jërëjëf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni. Hmm. bu ngeen bëggee ma bëgg leen ngeen tàbbi àjjana di leen bëgg euh, di leen waxante ay wax yu neex ay wax yu nooy. tabaarakallah. yonent bu yàlla mas a wàcc daal da ko naan buur adduna boo demee bu leen jaay naan yàlla mu yónni. Hmm. na nga waxante ñoom wax bu yaru bu ànd wax bu nooy. dëgg la. nit booy wax ak moom boo bëggee mu bëgg la. Hmm. del wax ak moom wax bu nooy wax boo xam ni doo ko jooy waaye dana ko neex. dëgg la. waaw ba dama leen di nuyu rek li ci def ñoom ñooñu ñoom ay yarkat lañu ah, dinañ ci wax loo xam ne nit ñi dañu ko mën a dégg. tabaarakallaa. saa mu njëkk bi sax daa nga jël sa doom di ko joxe nit ñu koy yaraan mais jamono ji ñu toll. maanaam ku bëggul sa doom nooy bëggee doomi jàmm. dëgg la. ah xam nga léegi nit ñi li ci gën a bëri bëgguñu seen doom xam nga. loolu boo ko waxee sax nit ñi dañ dañ la wàllu nu mën a xam nga. walaay am na ku jur di sànni kay ku jur di. wala wala nuy sëy seen ba yàgg nga daal di gàddaay a wàcc fa say doom. Ah. Hmm. yaa ko tey xam nga ne say doom boo ko wàccee dañu koy def jaam. laay dëgg la. jaam lañu koy def. Hmm. bu dee sa jàmm ñu ko jur bu dee ko moo doon yaay amul wutaat. yaay ku mel ne moom amul. waaw baax na ñu ngi leen di di leen ñaanal yàlla. Mm-hmm. waaw moo ana sama jigéen bi Mantulaay. Mantulaay euh, dafa nekk yéen yitte yi rek. Ah, nga ñaanal ko bu baax yàlla ko yàlla barkeel fu mu nekk. amiin yaa rabbal alamin waaw baax na ñoo daal ànd naa ñaar ñoo xam ne daal mi mi man lañu sëg bàyyi nañu leen xel. tabaarakallaahu. yaa ngi jëf. jërëjëf euh, Baye Youssoufa Seck Mantulaay Thioub Ndoye ñoo ngi lay ziar bu baax euh, damay wax ni yenn saa yi nga jël. xale jox ko jigéen. Mhm. wala ku mu mën a doon mu yaral la ko du fa def sa jikko jikkoom la ay def. Mhm. bu demee ba màggi ba xàmmee nga jëli ko baa mu andil la ko. Mhm. soo leen moytul ci xuloo ngeen ni dëkk yéen ñaar. dëgg la ndax moom du xam du du miinul sa jikko te jikkoom la fi andi su boobaa nag da ngay mujj nag soo moytul di xarab ki ko yar naan ko diwoo ma tooñ. mi la yar bëri na koo xam ni gërëmuñ ko waaye yaay ja ko yaay ja ko joxe woon day mujj. di wala bàyyi ba ko joxe woon day mujj di xarab ka ko ka ko yar. Mm-hmm. parce que bu ñu histoire yi xam ni jikko ji mu yor ak moom doomam yii mu yor wuute nañu. Eh aywa Ndiaga wax wax li nga wax ëpp rëy na. ah nga wax moo am. wallaahi yenn saa yi nga yar ñetti doom. Mm-hmm. jël kenn joxe ji. waaye da ngay ki nga joxe ji doo leen juboo mukk ci mm. àdduna ci ay wax. ci àdduna boo jooyee sax moo la jooyal. parce que sa doom yi sa jikkoo nga leen jox waaye ki la jikkooy jaamur la fi andi doo leen mën a juboo mukk te wallaahi ajandaat maa ngi wax ni képp koo xam ni wóor nga ni jikkoom neexu ko bu ko jox sa doom bu jox sa doom mm-hmm. Mm-hmm. bu la ni Fall Ndiaga mii jikkoom doyu la boo amoon alal doo ko ko dénk ndax wóorul tey say wax doo ko ko dénk ndax wóorul nga jël lu toll ni nit di ko ko dénk loola ca dal yow la Ndiaga mm-hmm. tey boo demee tribunal ñaari nit di tas ñu yore tout tànk dañ koy jox yaay ji. dëgg la. ndax yaay ji moo ko mën a téye moo ko mën a yar bu ñuy waxaat ci waxu xale bi day fekk di xanaa xale bi dëgër da wëri baayam baa baay ba def appel ñu nangu ko jox ko. Mhm. kon yaay am na solo ci doom am na solo ci doom. Paa Youssoufa wax na ko léegi nga sëy bàyyi fa say doom tas lan moo ko jar. Mhm. sëy dagan na. fase dagan na loolu la ñu wax kenn ku nekk am nga sa raison bu tax nga génn ci sa sëy waaye jigéen bu nekk war na fexe booy génn ci sa sëy nga ŋànk say doom ni muus nga fexe leen a téye ca la nga am yar leen ci ñu yërëm la ci yërmande njaga yii di am nii yëpp léegi boo ko gisee parfois nag dañuy mere seen jëkkër bañ mu am jot man gis naa koo xamante ne dem na doom ja waaw dañuy mere seen jëkkër bañ mu am jot waaw ah, bàyyi koog doom ya dem seen yoon yenn saa yi du ñu mere seen jëkkër dañuy daan damaa jël sama indépendance damay dem defaru jiwaat am na ci jigéen ñi lu ci ëpp léegi loolu la ñuy def duñ ma fat waaw doom nga toog ba naan doom du ma fat oh. ak doom ni mu neexee ak ñi ko amul di ko wëri wallaay dëgg la te amuñu ko mënuñu koo gis. Mhm. man gis naa koo xamante ni njaga toog na ba guddi. musuma gis ku neegee noonu nag. Mhm. dem ba buntu fa jëkkëram di liggéeyee di gaar garde guddi mu jol doom ji teg ko ci buntu ba. Mhm. wan ko ginnaaw dem. musuma gis loolu. ñu jëlati xale boobu amuñu kuñ ko jox ñu jëlati ko jox ko beneen nit. nit koo xamante ni xolam yaatuwul. dafa sonal xale bi di ko def yoo xamante ni. ku dëkk ak moom sax gis na li muy def xale bi xam na ni nii mu yare xale bi du yoon yu mel noonu moo tax nit ñi joxeetuñu seen doom gis nga ndaak li nga wax bu njëkk niñ daan joxee xale yi dëgg la dañ daan partage sa wujj sax da nga daan jox sa doom dëgg la sa wujj nga yeewu ñuy wax ci kër gi yaay te xamul ku jur xale bi dëgg la yaay jooju mu lay wax buy wax ak yow day sëgg bu lay toggal bu la koy jox day sukk mooy yore sa néeg moo lay defaral lépp di la wax yaay kër googu day am harmonie mm-hmm. doo xam doomu baay yi anañu mais tey wujj yi dëkkatuñu. loolu ñu mm-hmm. rafet jikko ku séq. waaw waaw. ñaar ñu rafet jikko ñu rafet jikko ñoo séq loolu ah. moo tax waaw. ah kenn ku nekk la nga am nga joxe. ñaar ñu rafet jikko ñoo ko séq dëgg la. waa léegi nga joxe nit ki nga ko jox bu xëyee day liggéey jëkkër ji day liggéey doom yi dañuy jàngi nga bàyyi ko jànq boo xamante ni xolam baaxul su xale bi bëggee naan ni ko may ma ma naan fekk ma ngay connecté wu ca wifi ba may ma ma naan sax mu mbéj doo yaa ngi may déranger lii xew ci kër yi boo génnee kenn xamu ko. ba tax na nit ñi war nañuy vérifier seen doom dama am mag joo xamante ni su accouché ñu ne ko am nga doom day lox te naan nañ ko wan doomam. waaw. day xool cëru doom ji fu nekk lay xool. waaw da koy waaw waaw day xool doom ji day lox moom ba tànk gisul doomam. tijji ko xool cëru doom yeeg yëpp. du mën a am jàmm. dëgg la ndax dafa bëgg ay doomam ba dañ ko koy wax dañ naan ko yow da nga bëgg doom ba ni nga yare sax est ce que noonu la nit da ngay bëgg sa njaboot. da ngay bëgg sa doom waaye boo toogee ba yàlla nattoo la nag ajaa hmm. nga xam ni yaa fi sës yaa war a yor sa njaboot yore sa njabootu mbokk nit dina dëddu ñàkkul fayda bay dee yàlla moo ko yóbbu mu bàyyi fi njaboot gu sew njaboot gu sew gi ñun dañ koy seddale ci ay nit hmm. bu la ci kenn mën ndax yaayam bu fi nekkoon yor leen te la yóbbu yaayam du la fi ba Mhm. mais nga jël ko yàq ko butoge yàq ba xale bu génnee bu toogee sax bu gi gis sëri yàqu nga xam ne bi dañ koo bàyyi ci ma jël ko ci lii salaamaaleykum. Ah, maaleykum salaam. waaw ngi lay bu baax. ngeen dama ndax Stéphane mi seen laaj ñu ngi ci loolu. wax dëgg yàlla ñu bëgg ma lool ñu yaay Pape Sall bu bëgg ma lool suñu kooku si man bu baax. mooy xale bi. li ma ko yore sama seen mag ne dama dama jël dama ko jël teg seen kaw. tabaarakallah balaa maa xott xottil ko. balaa ma ne la sama kër mu ñëw di togg ma ne man daal samay doom di xëy di gàtt saag di jàngi. ma bàyyi ko moom mu sëy di ko bere di balee ko togg ma ne ko léegi soo toggee añ rek bi su ma wàccee naa ko togg yow léegi demal demal nga jàngi tey kooku teel ko su ma nag mhm. allo mhm. waaw ma taaj ko di ko redressé moom mère ubbi armoire di ay yërëm ne de mhm. ma oo papaam ne ko ah diw danañ day ñëw mu ne ma waa bàyyi ko réew mi ndax. Oh. waaye mu ma bàyyi ko keroog bañ koy takk yëgum ma ko. nga. te bi mu ñëw ci ma papa mu ma ne mënut a toog toog. Mm-hmm. soo ko mënu koon toog ndax ay jabar taan nekkaloon du togg du yàq. waaw. ku dégg sama wax ji ci ñoom ci ñoom dañ xam ne. nga xam ki nga wax walaay. ma jël xale bi teg ko fan maa ngi xotti général maa ngi jël di soirée mais xale bi daal dëgg woon ma gannaaw ma ne teg rek. Mm-hmm. ci gàttal. Hmm. ah bi mu amee doom lu mu sëy fa lu yàgg amul doom bi amee doom oo na ma ne ma am naa doom ma ñaanal ko te yàlla xam ne sama xol bi dama ko rafet moom set wécc wécc wécc wécc wécc yorul ma yéene ma ko dara li ma yéene samay doom laa koy yéene. Hmm. te moom dem na ba reconnaître ne defuma ko dara. waaw. mu bëgg a gëstuwaat nag ah man tam nag ma ne ko nag mënatu nekk parce que dafa yàq lu bëri du ma dugg ci détail sa ngeen dafa yàq lu bëri. Hmm. sama digganteeg sama jëkkër sama digganteeg samay dëkkandoo. say caamin waaye man damaa ànd ak daal rek gëm yàlla. Mm-hmm. xam ne li ma yéene samay doom bu fekkee taxaw naa ma ne li ma yéene samay doom bu fekkente ne def moom def naa ko lu bon dem këpp ci samay doom man noonu laa doxee. rawal. fi mu ne nag mu nga ci sëyam comme ñu sëy sëyam bu neex yaa am na génn àdduna ndax yaa am moom ko defoon. Mm-hmm. yaa am génn àdduna mais ma nga sëy sëyam te xam naa ne sëyam neex na ndax. ngoo gis xam ne seen nekk. tabaarakallah ma ne du ma fa dem di foofu indi loo xam ne dama koy yàq seen. déedéet déedéet bu du ma dem du ma. mais bu bu solee daal ma nag nga recevoir. voilà. bu ma tuubalee it ma nangu ko ndax sa bopp la ñu baax. dëgg la. bu te dire que gis nga yar xale dafa metti dafa metti. Mhm. dafa metti. lool da ngay fexe ba yow mi nga yor. yor ko te yàlla tax te lépp lay def ne yéene sa doom nga yéene ko ko. dëgg la soo lëggee bu génne sa loxo it yàlla moom dina la fay bu la fay. dëgg la. man loolu laay digal ku yar doom ndax nekk ci ndey bi am ndey am nga bàyyi. jërëjëf. waaye yow xale di ko gën wala nga def ko kii yow demee yow sax doo am daa am tranquille mais man dafa metti jërëjëf yaa booy. jërëjëf yaa booy. jërëjëf eh, wax na dëgg nag yar daa metti dafa dafa am yar yoo xam ni. Eh, salaamaaleykum. ñoo ngi lay ziar soxna si. yaa ngi ci biir. maa ngi mhm. waaw. waaw. seen kii gépp a lay déglu fi mu ne nii. nuyool. maaleykum salaam. waaw ca bisimilah. maa voilà dafa mel ni dem na bu duggee rek euh, Sénégal gépp nga koy déglu euh, mën naa dugg rek nuyoo wax ay xalaatam ku dugg nga ni alo euh, yar dafa metti moom mii ku baax la gis nga dafa am ñoo xam ne neexu ñoo yar ndax dafa am waajur yoo xam ne dañuy joxe ba pare te seen du fa jug wala seen nopp du fa jug dañuy woo seeni doom di leen laaj am ñoo xam ne bi doom jeex amul dara mënul dara xamul dara lañ koy joxe waaye bu demee ba mën a raxas mën a togg dañ naan du ko maanaam la muy toggal jàmbur nga ñëw toggal ma ko léegi nag ci boobaa ñoom ñooy coaché ca kër ca kër ga ñuy toog la ñuy nekk di coaché xale ba xale bi jóge fa ñëw ci moom lu sotti am borom nga wax waaw lu sotti am borom hmm. boo mënagul kenn soxlawu la amagul moo ko amagul yem est-ce que ko amul amoo jikko dëgg la ak ki amagul yem kenn soxlawu leen ki yàlla dogal mu yor la rek moo la soxla dëgg a defar ba nit mën laa jariñoo soo liggéey nga woon ko gannaaw dem mais euh, du du ma ci am cas de conscience. Hmm. defal li nga war a def rek. Hmm. parce que li ci de sama borom la. parce que ki nga yar te mën tëlewoo suma ma nee bu la teralul yàlla kon ne da lay teral di la suturaal. maa la wax loolu. bu ci basé wu ci ki ma yor wala ki ma jur ñu fay ma ëllëg. parce que borom pay gi mooy borom baas bul bi borom bët bi seen ñëpp nekk ci xam li xew gën la jege sa bu mu xool moom sama borom mooy fay. mais jëfal li nga war a jëf ba bu ëllëgee du am cas de conscience. Mhm. parce que am na xam ne ko def xale boo tëddee doon nelaw. wallaay dëgg la te da nga yor xale mu am caay-caay goo xamante ni bu la mënoon rend sax rend la. Mhm. da nga yor xale mu leer la ni li nga ëmbal sa njaboot moom sax xam na ni tu es pur nit ku ku set nga ku ko yéene jàmm. nga la mais am ñoo xam ne seen caay-caay ci seen biir la ne. wallaay dëgg la dañ koy dund. xam nga xale yi mais dama dul nangu tamit nga yar sa doom bu tëlee yaroo ko yar bu baax. di mënul togg mënul fóot di tontu am jikko boo xam ni gërëmoo ko. salaam wa rahmatullah. waaw ci émission bi laa bëggoon a participer. acca bismillah ñoo ngi lay déglu bu baax. ah kon baax na man de damay woote. Euh, sama tante moo ma yar. Mhm. waaw sama tante ki ay bokkal ndey ak baay. Mhm. waaw moo yar. waaw. Euh, bi ma yoree nag ma dem foofu. maa ngi am 12 ans. Mhm. Euh, bi ma yoree am 12 ans ma dem fan sama doomu doomu bu jigéen sama cousine. Mhm. boobu moom mi ngi am 7 ans comme 7 ans waaw. Euh, dañuy teel a yeewu. Mhm. teel yeewu ay 6 heures yooyu. boobu mu ngi dëkk Grand Yoff mhm. marché gan li may wax yàgg na tuuti ñu ko doon wax marché gan xaar yàlla xaar yàlla uh-huh. waaw léegi euh, bu ñu yeewoo loolu daf ma marqué ba bés ni ki su suñu yeewoo doom ji mu ngi doon jàngee Liban uh-huh. vacances lañu doon ñëw foofu maag sama benn cousine mais man maa fa doon nekk suñu yeewoo moom day jël euh, doomam bi suba teel gi ñu dem jënd ji mburu bu fanaan marché gan kilo fukki dërëm doon jar uh-huh. kénkiliba la ñu doon defaral bàyyil ñu noonu doom ji mu defaral ko layu nii doo euh, lu lekk bu nekk mu def ko mu tegal ko doom ja nee ñun mu tegal ñu doom mu tegal ñu suñu layu nee xam nga loolu dafa metti nga koy gis dafa ñaaw mettiwul daa ñaaw waaw mm-hmm. euh, su yeewoo ba mm-hmm. teel bu yeewoo pardon mu dem liggéeyi bu wàccee mu indaale doom ji lu nekk toggal ko ay pat ak yooyu yëpp tey man maa ngi ni France laay woote macha allah. Mhm. tey man maa ko yor. waaw ah, waaw. doomam boobu nga gis noonu tey sama kër yaay la nekk sama yaay daa génn àdduna. doom am na ñaari doom te doom ji motolagul 18 ans tey maa yor xale boobu yor doomam bu góor taamam bu góor maa ko yor te lu ne la ma def. lu ne la ma def lu ma deful. bu ma ko nettalee rek dafa dafa ñaaw wala day mel ni yàq la. mais am na loo xam ne. nit bu la joxee xale lu xale ga tuuti tuuti tuuti dafa am xel xale day gis mais du wax man loolu mosuma koo nettali sama yaay. Mhm. tey maa ko yor bu ma la nee tey maa ko yor feebar na entre hôpital chaque mhm. jour may fay trent mille lu ne laa koy defaral mais li ma def li ma def ba léegi fàttewuma ko ba léegi ak mooma metti mhm. ak leneen ak leneen école da doon jot mu ni euh, ñawlul ma euh, Lagos boobu Lagos moo xew. Mhm. ñawlul ma Lagos 2 mètres ñawal ma ko robb doom ji mu ñawal ko robb tout fet yi defaral ko ba mu baax ne ma dem leen man bu jëyee daf may toog ne doom ji mu jël ko teg ko ci loxo dawal wala bu ñu génnee mu teg ma ci ginnaaw oto bi naa ëpp doom ji lu ne daal ay gens yu sew sew te moom ak sama yaay ñoo bokk benn benn ndey ñoo bokk ndey ak baay te yàlla sutura ma ñëw Europe tabax kër tabaxal ko teg ko fa. Mhm. tey gis nga doomam boobu maa ko yor. d'accord. lay dëgg la. moo tax nit boo yoree sa doom booy mëq suuf sax na mëq suuf ak yow. dëgg la hmm. lay wax dëgg. moo tax àdduna amul solo doomu jàmbur boo ko jëlee yar ko ni sa doom bu yeboo sax ñu ne kii sax doomu jàmbur sax bi doom la gën a la gën a la ak doomam. Mm-hmm. mais yemale leen. dëgg la xale du du fàtte jamais surtout lu bon xale du ko. fàtte déedéet déedéet déedéet mooy fàtte lu lu baax mais lu bon kenn du ko fàtte. man de fàttewuma. te lu ne laa koy defaral lu ne maa koy defaral benn doomam boobu amalu ko benn njëriñ tey sama kër yaay bi ma tabax mu nekk fa moom ma tabaxal ko mu ngi foofu te doomam boobu léegi am na ñaari doom yàggul wasin tax doom mi kenn xamul kan moo leen ëmbal te man lu ne la ma doon waxal ñafe ba ñëw Europe mm-hmm. maa ngi leen di bàyyi merci beaucoup kontaan naa sama ñaari tata yooyu na leen yàlla fay. amiin yaa rabal alamin merci waay jërëjëf soxna si jërëjëf euh, nuyu waa France bu baax a baax. Monique moo nga France ak Yaama Pouy sama grande sœur Anta Balla moo nga fa euh, euh, yaa ngi doon wax ni euh, dafa am lu xale bi wax lu ndaw si wax sama xel demoon ci sa benn wax nga ni kii leble jikkoom la def kii fay moo dis gor am na ñoo xam ni am na xale yoo xam ni fayuñu fayuñu fayuñu fayuñu naar bi xoromam oh. waaye li li li may dugg ci moom rek gàcceeg dóor gàcceeg daal fay na ko dëgg la lu mënoon a daj ci àdduna tey macha allah rendre grâce à Dieu sant sama borom yàlla ko yàlla fak cat te yokk ko mooy li ma la wax rek taraa ngay gàcce mhm. tabaxum gàcce boo ci dee doon nelaw déedéet feebar bi day gën a yokk du gaaw wér mukk ci àdduna la muy xalaat fa ma jaar kii ak lim ma faye tey te bu ko neexoon mu am lâcheté comme moom fay ko ku ba mu wis ko su weedee rek ma wut lu ma la sànni mais tabaxal la kër yor la doon rek ko war a defal waajur la kon kala ko defal ndeyam a baax ak moom mii yàlla may ko baax parce que am na lu doom def loo xam ne yaay ma ko cautionné parce que même yaay soo ko waxul dana am yëg-yëg mhm. parce que njaga am na sentiment cofeel ak bëgg goo xam ne kii la yar su la deful lu cox rek nga am ko ci moom dëgg la mais am na benn réticence benn réserve soo xamee su amee ci diggante rek am na lu xew ba ci jëkkër ak jabar ba ci ndey doom la ilaha illallah jërëjëf mbokk yeeg xarit yi li ñu mayoon ci waxtu jeex na tàkk di jaa jëfal Adja Ndak di ñaan yàlla bàyyi kook xelam waaye di jaa jaajëfal euh, Adja Afsa di ñaan yàlla bàyyi kook xelam euh, di leen jaajëfal bu baax a baax di jaa jëfal Sénégal yëpp am ma bàyyi la nga tàggatoo. xanaa njëriñ di wax ni Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ñu gën a góorgóorlu rek xam ne njaboot gi yëpp ñoo ko bokk. Mm-hmm. la nga falax fee ni dafa bon. bu ëllëgee xëy na mooy raamaat ba dugg sa biir sa biir kër. Mm-hmm. kon ñu yaatalaat xol yi ki ngay xatal yàlla mën na koo mëne ba ëllëg jom jooju loolu yaa ngi koy yokk jom ba ëllëg mu mën laa yor yor sa xeet mhm. kon nañ defaroo rek xam ne àddina amul solo mhm. fii ñu bokk nañ ko defar ñu yaatal xol yi téye xale yi jigéen ñi tamit nañu téye seen njaboot surtout njaga nañu nañu am jom seen njaboot mhm. ndax suñu yaay yi lañ daan jur ñun juruñu ko te dañ doon téye ba téye ñeneen kon nañu am jom yi téye seen njaboot ñuy wax waa Sénégal kontaan nañ ci ñoom Adja Ndak ma bàyyi la nga tàggatoo xanaa di di sant yàlla rek mi ñu may ñu fekke woon fekkewaat macha allah yàlla wéral baat bi. dëgëral taxawaay yi saxal ànd bi. amiin barkeel liggéey bi ba mu egg fu wees suñu njort. di ci nuyu bu wax sama mag boo xam dafa jógee Paris ñëw fi ñu koy wax madame Faye Dabara Camara kor Sidi Faye ah chéri Lena ak maam Fatou maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla jàmm di nuyu sama rakk ji ma jox moom mi ndey ba dara kon Boubacar yaay mami Kunta maa ngi koy ñaanal liggéeyam barkeel te yàlla dolli eh, di wax rek nañu góorgóorlu. Mhm. jigéen dafay ŋànk doom dafa am sama benn xarit nawle bu may nekkal souvent koy wax Ngoy Mbay. ngooy Mbay nga leen maa mbay jooju fëri dafa dafa dafa bëgg doom day dama koy wax ne ko bari na lu ma sopp ci yow mooy day ngaa doom yi ne muus. Mm-hmm. lu mu am doomam ngay daw di di di couver ay doomam njabootam. Mm-hmm. ak lu mën a rek. elle est toujours là à de ses enfants elle vit pour ses enfants ma koy ñaanal. nga leen maa mbay jooju yàlla na dund ba fekkee njëriñu njabootam. parce que njaboot bu nekk yaa ngi ñaan. fekk sa ñaari njaboot yàlla ñu ko defal ñëpp ci barko yent bi wax ne baax moo gën a sakkan mm. baax a gën a sakkan moo gën a sakkan ku yebu def lu baax ku fekkoon nga nekk leneen ñaanal sama borom mu wulbati la nga leble mbaax mm-hmm. parce que nit lu mu leble dinaa dajeeg moom alaa kulli haal kon yàlla nañu yàlla xëy def lu baax ñu jox leen daje beneen yoon rek ci la seen ci waxtu yi incha allah jërëjëf euh, Adja Ndak jërëjëf euh, Adja Absa di nuyu bu baax a baax euh, seen soppee bopp commissaire Jara Euh, nekk ca Thiès ak soxnaam dañuy topp émission bi tabaarakallaahu waaye commissaire dafay mujj sax di ma woo di ma dolli am xel ak xalaat euh, di ko nuy bu baax waa seen TV officiel seen soppe yi ñoom it wax dëgg yàlla ñoo ñu commentaire boobu ba léegi <laughs> euh, ku mel ni Khady Mbaye Marème Guité Biti Diop Biti bu Diop moom daf ñuy topp ci suba teel macha allah xujje bi tey Thiam ak Abdou ñëpp wax dëgg yàlla Aïssa Diallo dañuy ànd ak saa su nekk ñu ràññee leen lool lool lool ci seen TV officiel maam Sidi jaajëf di jaajëfal yi ak Abdou ak eh, Ibrahima wax dëgg yàlla jàmbaan ngeen bu baax a baax a baax eh, yemu leen rek seen liggéey. da ngay nuyu simeer sama xarit bi. di nuyu sa xaritu bopp bi kenn du moom si xaritu <laughs> ñëpp la voilà voilà kenn du yéen. Eh, bëri na loo xam ne da ngeen di jël seen liggéey boole ko liggéeyu keneen yal na yàlla fay leen. yàlla taxaw leen di wax ni jàmm ak jàmm yal na Sénégal am jàmm ba faaw. ba suba ak jàmm incha allahu rabbi Bakary nekkal si jàmm bu baax tey wàcce woo tey